saddi lisaani nawwir janaani safi amaani wasid baraa'i jërëjëfe Serigne Touba est-ce que Serigne tubaa Serigne Touba amul morom ñoo ngi santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax di lott lool ci sant gi nag di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di santaat sëriñ tubaa bu wér a wér ci xéewal yéeg lépp rek di ñaanal Cheikh Mountakha Mbacké Bachir yàlla na fi yàgg te wér naal yim naal yëpp yàlla na ko eggale ba naal yeneen naal ñu ànd kook moom te lépp ñu amit ci tawféexu Serigne Touba ak ngërëmul Serigne Touba barke Cheikhul Khadim ñoo ngi santaat yàlla bu baax wax dëgg yàlla ci di teew saa su ne ci seen jàngat yi nga xam ne ñu ngi koy def di napp na bi ngir liggéeyal Serigne Touba rek ñoo ngi ziar waa Saxum Touba l'officiel ci youtube bi di ziar waa Saxum Touba point net ci site bi di ziar waa soppay daara Saxum Touba yëpp ak ñi bëggee di ñu topp di ziar kilifa gi nag Cheikh Mountakha Cheikh Moustapha Diakhaté di ko ñaanal tur bi nga xam ni moom la toftalee ci turam wax dëgg yàlla muy xaadimul xaddim ni yonante bi sallallahu alayhi wa faye Serigne Touba yàlla na ko Serigne Touba faye noonu barke Cheikhul ñoo ngi am mbégte bu baax a baax nag ci jàngat bi nga xam ni ñoo ngi ko bëgg a def muy Saxum Touba boo xam ni sëñ Saawa defoon na ko bu yàgg ngir tontu sax indi ay leeral bu baax ci diggante ñi nga xam ni euh, ay wahabiste lañ ak i salafiste ak ñi nga xam ne dañuy ŋàññi rek. waaw ak wax lu ñaaw seen mbokkum jullit waaw te muy loo xam ni moom kenn mënu koo comprendre indil ñu itam waxi sëñ Muntaxa gannaaw korite gi mu fi waxoon ci ni nit ñi war a nekkee ci dëkk Tuubaa bi mu defoon ci waxtaan mu am solo tey nag jamono tollaat foo xam ni waxtaan bi dafa dafa mat ñu yeesaalaat ko moo tax ñu ñu ñu ñu wax dëgg yàlla ñu jàpp ni xaj na war nañ cee mën a def jàngat waaw bu tuuti rek muy lu am solo nga xam ni sañ mun taxaa moom ah ñun murid yi de war nañoo santaat yàlla bu baax a baax a baax ndax dafa mel ni sëñ Muntaxa buñ ko dee déglu rek bu yóbbu bu sooba yàlla dinañ xam fi ñuy teg suñ tànk bu baax ndax wax nañu wax yu leer loo xam ni mën nañ koo dégg te mën nañ koo doxe ndax wax nañu ne dee leen xool ci man waaw loolu nag ëmb na lu baree bari waaw dee leen xool ci man waaw mooy rek ni nekk ci ndigal yi di bàyyi tere yi bëgg Sëriñ Tuubaa bëgg diine lu ñu naqare rek ñu def ko suñu bànneex te xam ne yàlla bi bind moo yemalewut waaw sëñ Muntaxa moom foofu la nekk waaw kon ab booy wër am murit saadix mooy sëñ Muntaxa la mu waxoon sëñ Muntaxa Géey rek ne ko murit saadix moom jafe na ca booba muy nettali ne dafa am ko ko tooñoon mu laaj ko ndax metti la la mu ne ko metti na mu ne ko kon doonagoo murit saadix <laughs> waaw ndax murit saadix moom buñ la dóoree nga daanu jóg di xool kan moo dóor booba sax motoo murit saadix waaw nga xam ne lu jafe ngoog waaw kon murit saadix boo ko dee seet dafa mel ni maqaama la waaw kon ñun bu ñu dee xool sëñ Muntaxa rek yaakaar naa ne dinañ mën a doon ay murit saadex yàlla nañ ko yàlla defal nga xam ne discours bi sëñ Moustapha Jaxate jàngat nii ci sëñ Muntaxa dafa fees dell akuk jàngale waaw daa fees dell akuk jàngale aku mat sëkk nag ndax sëñ Muntaxa moom dafa mel ni wax dëgg yàlla kilifa gi mu doon mat na ko sëkk sëkk sëkk sëkk ndax xam na responsabilité bi mu yor xam na nan la ñuy responsabilité xam na itam saa bu waree jël responsabilité da koy jël waaw te du ci xaar dara saa bu waree wax wala mu war a jëf da koy def muy lu am solo nag ci kilifa waaw kon soññee yi nga xam ni moom lañ sëñ Moustapha indil danga ciy gis bëgg ku tedd ki waaw gën a laxasaayu itam kon sëriñ bi moom sëriñ Muntaxa mii buñ ko dee xool rek loolu yëpp dinañu di dina gën a nekk ci ñun waaw ndax bëgg diine gi moom kenn weranteetu ko waaw bëgg diine gi moom foo ko takk weesu na ndax di nga dégg ba tàyyi ñu ko xam dëgg ne xam-xam du ko mës a ñor te diine mooy xam-xam sëriñ Tuubaa loolu lañ njëkk digal waaw nañu sàkk ji xam-xam boo sàkkoo xam-xam ba noppi nag nga tege ci ak jub boo tegee ci ak jub ba noppi nag na nga moytu jotaay yooyu texeet yi ndax loo xam-xam te tegewoo ci jub mbir ma du am solo boo xamee tegee ci ak jub di ànd ak ñoo xam ne ñu dëng la wala ñu texee di boo moytu di ànd ak ñoom ca seen ca seen safaan kon muy ñett yu lëkkaloo yu am solo Sëñ Muntaxa nag xam yooyu yëpp ndax université bi nga xam ni mu ngi koy taxawal rek doy na misaal ci loolu ndax xam-xam gu ko ñor te mu doon mébatu Serigne Touba mu nar ko eggale am yéene eggale ko te yàlla na ko eggale ak jàmm yaakaar naa xam-xam bu amee rek réer moom toxu te réer fu mu toxoo rek leer dugg si nag moo tax diskurom bi la am solo la. te itam euh, ci discours bi da ngay gis ni mu jëree li ma doon wax sànq ni mu jëlee responsabilité am ndax tey moom la fi yàlla def mu toogal fi Serigne Touba responsabilité yoonu murid yëpp nekk ci moom waaw mu njaboote ñëpp nag kon warul seetaan loo xam ni dafay am ñagas-ñagas wala lu bokkul ci yoon bu mu ci dugg li mu wax ku fi uuteeg njàngalum sëriñ Touba nekk ci tëgg bi. dëkk Tuuba dëkk ba noppi li sëriñ Tuuba jàngale nga ne danga ko fi teg di ko dinga di indi leneen nañu toj sa kër génn la dëkk bi waaw ci bu wér wér ndax loolu ñi fi jaaroon ñépp di ay waajuram ñu bokk ñu ñoom ñëpp sëriñ Tuuba foofu lañ mës a nekk sëñ Abdou Lahad gis nañ ko am na ku fi génn dafa dem ba ci buntu këram ne ko yaay génn wala ma génn <laughs> waaw léegi nag loolu wax ju leer naññ la te kooku dafa mujjee génn te loolu res xam sa responsabilité jël ko la dafa uuteeg violence déedéet du violence de waaye lool sàmm sa moomeel la ndax àdduna bi àdduna bi yëpp réew moo fi dem dañu am ay texte ak ay loi di ca dox di dox ci te képp ku ko respecté wul dafay am daan yu de daan yu daan yu ñëw sa kaw gis nañ fi ba tàyyi nit ñëw clandestin Europe ñu jàpp la dugal la avion delloo la sa réew loolu lu ko waral ndax ni nga ñëwee seen dëkk moo teguwul yoon lu tax ñu am droit boobu sañ-sañ boobu mën laa jàpp yóbbu la te fépp di àdduna loolu lu ko waral dañuy sàmm seen moomeet dafa am yu leen yu leen tëgg tënk noonu la demee nag waaw Tuubaa noo sàkkantumaak nag mbiru diine kon sëñ taxaa bu waxee loolu loolu ku amul ak dégg rek moo koy jàpp violence déedéet te itam xam gu sëñ taxaa xam ni njàngalem sëriñ Tuubaa mooy dëgg-dëgg diine mooy diine kese la mooy te àdduna mi ngi koy wone boo wëree àdduna wërngal këpp ba egsi Serigne Touba da xam ni Serigne Touba diine ju leer naññ la yor waaw donn gi donn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wóor tegu ci sunna su wóor kon ñi xam ne ñooy dingat ay wahabiste ak salafiste ñoom ñooy ñan bañ war leen di déglu ay nit ñoo xam ni dañ ay complexe lañ ndax mënuñu ko tudde leneen lu dul loolu ndax nit mënoo juddoo fi nga juddoo yaroo fa ñu tudd la say ñaari say maanaam say ñaari waajur seen diggante sax sëy ba ko daganal ca dëkk boobu la nga juddoo ci diggante boobu ñu tuddale ci dëkk bi jàngal la alxuraanul karim jàngal la xam-xam nga dem ba war a eggale sa jàng génn waaw léegi ñi ngay dingaan ne nekkuñu ci diine xanaa kon yow maanaam yow judd gi nga judd sax tegul ci yoon kon xam nga am na yoo xam ne da ngay wax bu dugal sa bopp ndax li ngay wax war nga ko xam bu baax a baax a baax a baax seetlu ko ndax bu fekkee da ngay sànni ci àll ba fi nga juddoo yaroo fa ne nekkuñ ci diine di leen takk fiir di wax ni li ñu nekk du diine du sunna waaye kon xanaa juddoo ci diine du juddoo ci sunna loolu mooy mooy yey sa bopp complexe goo xam ni kenn xamul lu muy nirool ndax jóge sa réew dem foo xam ni sëñ bi fekk nga fa ay nit ay doomu aadama ni yow ñu yor der boo xam ni bokkut ak sa der yow jàpp nga nit ñuul gi nga ñuul yow da ngaa war a féete suuf rek te Sëriñ Tuubaa loolu daggoon na jéng yi bu yàgg ci loolu kon ñun kenn du ñu jàngal mbir yooyu Sëriñ Tuubaa daggoon na jéng yooyu yàgg na te wane ne ko ci ay jëfam ak nattu yi mu toggoo ba am expérience bi tey suñ suñ borom fay ko gànnaar ba mu fa demee bu fekkoon complexe wala jàpp ni nit ku ñuul day féete suuf xéewal gam fa am dem ba naar yi nanga koo jiital ci xam-xam bu wóor ak jëflante ak ragal yàlla ak mën a jaamu yàlla ak toggoo ay ay ay nattu digganteem ak boromam ba wàllu yooyu xam ko xam ni kii kat der bu ñuul bii mu yor kenn waru koo xeeb ndax der bu ñuulam waaye ñu daggal la ay mbuumu jaam ba pare nga lànk ne damay delloo ci ci mbuumu ñaam yi mooy lii te te ñoom lan lañ jàng lan lañ jàng dama foog ni nit ki bu fekkee jàng nga karim alquranul karim lan moo ci nekk histoire yonent yi ñu lay nettali ngir lan la ngir nga waaroo ci gën a ragal yàlla topp yàlla digle yi ci nekk nga topp ko bàyyi tere yi waaye ñii bu fekkoon dama jàpp ni jàng nañ alxuraan dëgg ba dégg ko du ñu doxalee nii ndax alxuraan boo ko jàngee référence ngay doon boo ko jàngee jëfe ko référence ngay doon mais ñii nekkuñu ay référence ndax li alxuraan di digle yépp nga xam ni téeri fiq yi dinañ la ko jàngal te Sëriñ Tuubaa bind ci lu baree baree bare bare waaye da ngay gis ci ñoom ak yaree di ku goo xam nii doy na waar ak mën a fen ak ñàkk teggin naafeq ndax yaree di ku weesuwul fekk ay mag ñoo xam ne sëñ bi seen dund yëpp dañ ko jeexal ci diine ragal yàlla suñ borom subhaanahu wa taala topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam topp sunnaam nga xëy bis yow maanaam di xale bu ndaw maanaam ku xool sa parcours waroo fee jàng loo xam ne sax yow sa bopp mën nga koo xàmmee dégg ko waxuma la nag am cër ci yàlla ak yooyu de waaye li nga jàng sax yow peegagu ko waaw bay am cër ci yàlla bay xam yenn yi ndax mbir mi du caagi nu jàng ay ay ay ay kayit rek jàng ay téere rek déedéet mbir mi leneen la dangay ngay mos teg ci. bi ci tege mooy fen gi ñu mën a fen ndax weesuwul di di di dëkkal nit ñi fu ñu dëkkul naan nit ñi ay yéefar lañ jàppaleen ay noon nga xam ne ku la joxoon paaka tey nga tër leen ren ndax jàpp ngeen ay yéefar lañ lu ñu wax nga teggi ko tey wóor na leen li ngay wax nii du dëgg da ngay fen am na lu làqu ci ginnaaw moo tax nga koy wax te buñ ko wax ak ñàkk teggin goo xam ne lañ ci àndaale goo xam ni di saaga nit ñi ak lu ne ñu koy def waaw naafeq gi moom waxatuñ ko ndax wax yu bari ñiy wax yépp ay fan lañ koy utale te yonent bi boole woon na loolu ci mandar mandarga ay naafeq ak xeebaate gu sëkk te xeebaate ku ne yàlla xam ku ne xam na ne yàlla lu mu bañ la xeeb sa moromu jàmm te li gën doy waar lii te boo ko boolee mooy ñoom li gën a yéeme mooy maanaam melawu suñu borom yi nga xam ne suñu borom mooy aji gis ki aji dégg mooy ki nga xam ne moom rek a yor kàttan ñoom melo yooyu nga xam ne da dañ lay xamal ni maanaam safaanu melo yooyu yellul ci suñu borom waaye ñoom dañ ko yo melo yooyu dañ koy dañ koy teg ci jëmm suñu borom ji buñ ko waxee buñ ko mënee waxee noonu maanaam da dañuy tëlaloo yàlla maanaam li ma bëgg a wax mooy dañ ñoom kattanug yàlla dafa am fu fuñ ko yemale maanaam mën-mënu yàlla suñu borom dafa am fuñ fuñ ko fuñ ko yemale ñoom pour ñoom yàlla am na lum tële yàlla moom mën naa tële jox jaamam bu mel ni Serigne Touba lu ko neex yàlla moom. am na foo xam ni eh, mën na faa wute ndax yii yëpp boo ko seetee weddi gi ñuy weddi lu ne ñu weddi ko te xamuñu lépp na ko sëñ Sam waxe woon rek weddi dara rek mooy xam man xam naa lépp te li ma xam lépp li nga wax nii gisuma ko ci te xamuñu lépp yàlla mi nga xam ne nag ba muy bind tàgguwul kenn buy dogal du ne kenn maa ngi def nànkam te kenn du ko laaj du tax nga def ko wala ni nga ko defee kon léegi yàlla bu dogalee ñoom lu ñu xamut rek loolu mënta nekk loolu mooy loolu mooy ni yàlla kon mënul lépp damay wax ni ñoom est-ce que ñu ngi seetaat seen bopp est-ce que seen pas-pas seen dëgg-dëgg gëm yàlla ñoom ñu ngi koy seet kon boo seetee ñii gëmuñu yàlla dëgg-dëgg duñu ay seen xol yi gëm yàlla gu mat sëkk nekku ci waaw gëm yàlla gu mat sëkk nekku ci ndax bu ci nekkoon du ñu weddi karaamay nit ñi di we te itam sëñ bi ku mel ni Serigne Touba fi mu jaar xanaa kay Serigne Touba sax nañ ko tege ne waaye njabootam gi doomam yi xoolal résultat yi ñu indi ci diina ki fi mujj nga xam ni mooy Serigne Saliou Mbacke ci ci ci ci doomam yi xoolal xel kom xolal daara yi ñaate nit ñoo fa jàng alxuraan ñaata nit ñoo fa liggéey ngir diine tey ñu génn daara yooyu di law di wéy waa ñoom ban résultat lañ indi ñoom lu dul dëkkal nit ñi fu ñu dëkkur yóbbu nit ñi safara def leen ay yéefar te yeneen yu mat a wax nekk fi ñoom koy waxee rek ci wolof ñoom fan lañ toj fan lañ toj yenn yi nag iñaan la ndax lii yëpp boo ko xoolee ay résultat ñi nekk ci diine ji di def ay résultat di dabax ay jum ay jumaa milliards te yow sa dërëm ko nga génne sa xol bi du ngay wax yenn wax yi iñaan la te iñaan ndax ab jullit dina ko def te iñaan day lekk jëf nit safara di lekk caas te iñaan boo ko defee sa xol bi day dagg day dagg ba nga xër fa xëy faatu te boo demee ëllëg la ngay dajal mooy gën a metti ndax doole yi murid yi moom sëñ bi liggéey ak jaamu yàlla ku ne xam na ko ñoo la dàqal liggéey dàq laa jaamu yàlla loolu nag bu la juree nga iñaan bu la juralee kiñaan moom faatu ngay def ndax bis bu set masa ay masaalikul jinaan di am ay université di am yeneen ak yeneen ba ba faaw nag ba faaw bu fekkee nag ñoom boo ko seetee dafa am lu leen tax a jóg aussi loo xam ni mën mënuñoo euh, bàyyi ŋàññi ji ñu nekk ak ñàkk teggin yooyu ndax bu fekkee azaka gi nga xam ni sëñ bi xaalis bu bari la comme ni ko sëñ Moustapha waxe bu ñu demee ne dañuy dimbale ay xale Sénégal dañuy tabax ay jàkk dañ leen fay jàngal nangam nangam ñooñ di leen jox xaalis bi di leen imposer ay doxalin yow kon jaay nga sa ngor waaw ndax diine bëgg na kuy jaay ngor aada sax fi nga juddoo bëggul kuy jaay ngorom ay privilège yoo xam ne ay ndimbal lay doon te olof dafay wax ku la ku la mënal sañal la kon ñii nga xam ne dañ leen a mënal ñoo leen di sañal ndax duñ la jox xaalis bu bari nga ñëw tabax euh, juma ak jàkka ak daara nga ne léegi damay dimbali ay xale te jàngalewoo ñoom seen doxalin ñu ci bari tam itam bi ñuy jóge seen réew amuñu base bu dëgër maanaam tarbiwuñ jàng li ñu war a jàng ba xam ko ba dëgër këcc ci sëriñ bi soo ko génn waaw seen seen seen ngëm dafa oyofoon waaw moo tax it ñu defal leen lavage de cerveau te man li ma seetlu ci ñoom jàngat ko mooy dañoo ñàkk a mën a communiquer ndax communication boo xam ne yow saaga rek la ŋàññi nit wax lu bon wax lu dul dëgg doo leen gis mukk ñu def confrontation maanaam euh, euh, confronté wu ak borom xam-xam maanaam nangu ñu invité leen ci télévision ñu toog boroom xam-xam toog di waxal diine ak sunna di waxal mag ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy dinga duñ ko nangu mukk moom kay dañuy nekk seen ruq def seen vidéo internet wax li ñuy wax saaga dem duñu duñu nangoo mukk def débat boo xam ne débat dëgg-dëgg lay doon teg ko ci dëgg ak xam-xam ndax bis bu ne bis mu ne ñu dajji see seeni mbir teg fale waaw màggal yi ñu wax ak gàmm yi yëpp démontré nañ ko waaw lu am ci cëslaay des ci diine léegi màkk gis nañ bërki démb wahabiste yi fa nekk ak yooyu ñii jàpp nañ leen tëj ñii ñi ñi ñii ñu dàq leen ndax xam nañ ni radicalisme biñ ci dugal mooy yàq diine ba dinee lislaam fi mu toll ñu koy xoole beneen bët waaw lu fi jar teengal yàlla buur bi tedd bi sàkk nit ñi bu ko neexoon ñëpp xëy tuub moom defu ko dafa maanu bàyyi ñépp yow ngay xale bu njaw judd bërki démb sëñ bi xàmmee goo sa bopp sax yow bay bëgg li ñeenti neneen te na Sëriñ Tuubaa waxoon rek waaw fexeel ba yow yar sa bopp ba koo gis mën a ànd ak moom moo moo gën koo gis bëgg koo yar te sa ayib bi bopp na la doy yow wala si ngay lijjanti ayib bi keneen te ñoo xam ne danga naan jullit nga foo xëyee di lijjanti ayib bi nit ñi ñi nga xam ne ñu ngi ci diine di xëy di julli di woor di def lu baax seen alal fekkewu waa kii noo ko mën a génne ci diine tey buñ doon joxe bakkan mu joxe bakkanam ngir diine te yow kenn gisul loo def bu dee ci wàllu zaahir rek soxna yi leen yàlla boole sax munuñ leen yor far benn yoon gis nañ seen benn ku leen jiite soxnaam si dawoon ba ñëw Touba loolu gàcce la ci ñàkk mën a yor soxna waaw loolu yépp nag yàllaa leen di weer rek li ci des tam mooy. dama jàpp ne li sëñ Muntaxa wax nii lu wér la solution la ndax ñu mel ni kenn du leen yaatal naan suñu mbokk diine la ak nangam nangam sëñ taxaa lu nit war a xam xam na ko lu doomi kilifa di xam xam na ko lu kilifa di xam xam na ko ba egg na fa mag ñi ko waxee boppam naa fa mag ñi di egg waaw ci ay ci baatin kon. ak xamam du caageenu rek zaahir nii dafay xam ba xam lu nit ñi xamul kon lu mu wax rek am na fu mu ko teg du soxor de yonent bi sallallahu alayhi wa ni ko seex Cheikh Moustapha waxee da daan xoppe di bëggale waaw fii mbégte la beneen loxo bi jaasi doy na rek ci xisa bi nga xam ni xisa waa ji njam bi mu ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man de yàqu naa mu ne ko ndax lan mu ne ko ndax damaa njaalot damaa sengewu mu ne ko kon woowal nit ñi ñu jam la kooko ca gëm yàlla mu woo nit ñi ñu koy sànni ay xeer ba mu jëm ñu koy sànni ay xeer ba mu dee ndax loolu yonent bi sallallahu alayhi ak coxor la déedéet sàmm loi ak règle l'islam moo tax mu def ko sëñ Muntaxa taxaatam sàmmi règle ak loi yi l'islam ak dëkk bu sell bi Tuubaa njàngalem Sëriñ Tuubaa moo tax mu def ko te lu ko war la bañ leen a yaatal rek te itam damaa foog ni ngir nit bu fekkee am nga ngor doo fekk dëkk jàmbur boo xam ni ba mu fay sanc ay gaynde ki njaay àll ñoo fa nekkoon mu toj àll bi sëñ bi nga xam ne bi muy bind Matlaboul ni gaynde gi doon dàq njaay àll boobu ba mu ñëw ci ginnaaw Sëriñ Tuubaa teg ci ñaari bàggam gaynde gi taxaw xool xool daal di dëpp sëñ bi nañ seetaat li ba tey Touba ni mu mel yow amoo lenn luy def looy def di taxaw di nemee dingat ku mel nii te yow sa benn maam mësta sanc dëkk bu ñu xam yow nanguwoo dem ca àll ba bàyyi waaw bàyyi rek nanguwoo ko def ci yoonu yàlla te yàlla tax waaw dem ci àll ba bàyyi yor fa ay ndongo di jàngale alxuraanu karim wéet fa di toggoo ay nott rek nanguwoo koo def déedéet moom koy nekkal ci climatiseur yi jël sa vidéo saaga ñàkk gi waaye ëllëg lañuy xam dëgg dëgg dëgg dëgg fekk li li ñuy wax euh, bëy wee na mbus loolu moo leen di dal ndax tooke gi ñuy naan nii moo leen di rey te duñ ko yëg te itam ni ko sëñ Moustapha waxee mu am solo lool man mosuma leen a dégg sëñ bi Arabie Saoudite wala araab yi dara xew fa loo xam ni méngoowut ak diine ñu ubbi ci seen làmmiñ mësta am yow kon daal fi nga fi nga juddoo yaroo fa sëñ bi di làkk-làkk bi ñuy làkk ñoom daal nga teg ay ay ay ay ay ay daal ñoom nga teg ay tuubeen daal lii complexe mënu ko weesu yonent bi sallallahu alayhi wa biñ koy ŋàññe di ko caricaturer mosoo leen a dégg ñu wax ci mosoo leen a dégg ñu wax ci mbirum góor jigéen yi doo leen dégg ñu wax ci yu bon yi ci réew mi doo leen dégg ñu wax ci déedéet moom kay murid yi nañ defar jumaa ju rafet Masaalikul Jinaan ñu ubbi ko mu neex ñëpp. nga ne ay tabax rek la waaw ndax ndax jumaa ji dañ koo moomalee eh, Sëriñ Tuubaa te loolu mësta am xam ko loolu ay fen la loolu ay fen gënu koo mag mel ni murit nii moom dañoo réer lii nag ni ko Cheikh Moussa wax rek état dañ ci am responsabilité bu mag ndax tey ku taxaw ŋàññi président de la république ñu jàppale tëj ci kaso bi te bu dee daraja rek suñu kilifa yi ñoo ëpp daraja fop ndax ñoom ñoo yor suñu ruu di ko defar kon war nañu ut ay loi yoo xam ne da leen di protéger fu waay nekk di wax mën nañ ko xam bu leen neexee kon ndax ñor na leen ndax ñor na leen te itam ku artuwul ni ko olof di waxee ku artuwul di nga àtte te ñoom artuwuñ fi mu toll nii te itam jëfi tàppet ji ñuy def ñoom wahabis yeeg salafis yi nekk fa nga nekk sor yi di di saaga ka wax boo ñemee kay da ngay ñëw ba ci biir ñi nga xam ni ñoom nga jàpp na yéefe ngeen leen li ngeen nekk nekkul te saaga leen li ngeen saaga nga xool loolu mooy jëfi góor loolu mooy yëfi te itam lii bu ci état bi waxul li ma doon wax rek dëkk yu bari li ko li ko taal làmmiñ a ko taal wax guerre civile yi ngay dégg ak yooyu yëpp te action la ñuy def. foo gis action réaction day am foo gis action réaction day am te képp koo xam ni ñeme nga li ngay def ba teew ci kanamu ñi ngi koy waxal bu soobee yàlla boo defee action réaction dina am te su boobaa kenn dootul dégg kon muy lu am solo loo xam ni Cheikh Moustapha indiloon nañu ko ñu def ci jàngat bi wax dëgg yàlla dellu nañ ci jàngat bu baax dool dellu naa yàqu suñ pas-pas sax ndax bis bu nekk daal lépp lu ñu wax ñoom day mel ni ni ko Cheikh Moustapha di waxee rek yëngu-yëngu yokk day mel ni dañuy yëngal yoon bi waaye day yokk rek kon ñoo ngi santaat yàlla di sant Serigne Touba bu baax Cheikhul Khadim am mbégte bu baax di ñaanal kilifa gi ni ma koy waxee rek site bi daal yàlla na doon ay télévision ki rajo yu bari barke Cheikhul Khadim dañu am ci ngërëmal Serigne Touba allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu alhamdulillahi alkarim silmilan alastighadi bi furudin wa sunan sakartuhu lian qad sahani liwatani bihi nafa ma